asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen di bëgg di leen ziar di leen ñaanal jàmm rek ngeen wéy di abonné chaîne bi ndax lépp loo xam ne rek information la football ñu koy dugal fii du ngeen ko raté gars yi ah mooy loolu ok dañu wax ah transfert Sadio Mané au Bayern Munich avant ñu wax ci leneen transfert Sadio Mané au Bayern Munich ñi nga xam ne ñooy waa Bayern Munich woo nañ ki nga xam ne mooy agent wu euh, maane pour waxtaan ak moom euh, ci lu jëmal mooy si lu jëmal si lu jëm si Sadio maane agent wu maane lañu la ñu muy Bessémé moom la ñu woo pour waxtaan ak moom waxtaan nañu ak moom nee nañ ko bu fekkee sa bu fekkee Sadio Mané nangu na ñëw fi nga xam ne mooy euh, Bayern Munich dinañ ko fay li nga xamante si bi moo toy moo toll si vingt millions euh, d'euros vingt millions d'euros lañ ko nar a te loolu mi ñu ko fayee nag dina nekk lu rëy ci euh, Sadio si Sadio Mané parce que Liverpool gi mu nekk noonu rek moom 6 millions d'euros lañ koy fay donc bu naree dem bu fekkee dafa dem Bayern Munich ñu koy fay lu toll ni ci. 20 millions d'euros loolu lu rëy rëy la ci euh, Sadio euh, Mané ki nga xam ne mooy Nagelsmann nekk coach Bayern Munich Bayern Munich mu ñoom euh, Bouna Sarr ki nga xam ne mooy seen coach muy Nagelsmann moo nee na woo woo na Sadio Mané ba waxtaan ak moom nee na que projet yi nga xamante ne si bii moom laa teg fii pour ci Bayern Munich pour bëgg ko doxal yow nekk bokk yaa nekk joueur bi nga xamante ne si bii yaa ci doy donc bëgg naa nga ñëw trop pour rejoindre sama équipe bi. donc lu ñu si mën a jàpp ne rek mooy Bayern Munich instant yi dañoo taxaw temb pour jël ki nga xam pour andi ki nga ne mooy Sadio Mané mu ñëw seen euh, club mi mais nag Bayern Munich sax Bayern Munich weetu si le weetu si moom kase ah bu fekkoon wéet na si sax mu neex mais weetu si moom kase parce que ñi nga xam ne ñooy Paris Saint-Germain dañoo ñëw dugg si mais te Paris Saint-Germain seen xaalis la seen xaalis lañ parce que parce que euh, <clears throat> euh, parce que xool seen équipe rek euh, xam ni manqué na mel ni style boo xamante ne si bii dafa mel ni euh, Sadio Mané Neymar moo fa nekk te Neymar vraiment euh, saison yi nga xamante ne si euh, si bii mooy besoin club bi moom yi nga xamante ni nag na si ah comme ni mu waxee si Tchouaméni rek Kylian Mbappé na bii lu rëy la ci équipe te moom nee bëgg na Sadio Mané ñëw donc lu si mën a xam rek mooy Kylian Mbappé bëgg na Sadio Mané ñëw waa Paris Saint-Germain. bëgg nañ ki nga xam ne tamit mooy Sadio Mané ñëw instant bi nag dañu xaar rek xool Sadio Mané fa la dem si ñaari club yooyu mais ñoom ñaar tamit ñu si gars yi Real Madrid mu ngi nekk sur xob bi ah, mais Real Madrid doxul doxul ah doxul te taxawul tamit dafa daf doxul ah doxul waaw moom dafa taxaw benn place rek di xaar ñaari équipe di xaar équipe bi raté rek ku si rek incha allah dina mën a jël euh, Sadio Mané euh, te Real Madrid lay nangoo dem ah, parce que Sadio Mané ku euh, yàgg na wax ne dafa dafay rêvé dem si ñaari grand club yi nga xamante ne si bi ñoo nekk si Espagne mu Real Madrid wala FC Barcelone te Barcelone ku yaa seen seen bëgg-bëgg moo indi ki nga xam ne si bi mooy Robert leer Lewandowski moo tax ñu am yaakaar yaakaar ne rek ma Mané Euh, Sadio Mané day dem fi nga xamante ne si bi mooy euh, Real Madrid bu fekkee Real Madrid woo ko man foofu laa gën a xelaat sax mu dem fu euh, la ci duggee mais eh fu mu si dem rek na quitté Liverpool xamante ne si loolu mu nekk loolu moo nekk loo xamante ne si Sénégal yëpp moom lañ bëgg na quitté Liverpool ñetti club yi nag bu mu si dem baax na soit day dem Bayern soit day day dem fi nga xamante ne si bi mooy Real Madrid mais Sadio Mané Liverpool c'est euh, fini après moom mooy xool na parce que ñun euh, wax rek lañ ci mën a moom mooy xool li nga xamante ni si bi moom ko arrangé exemple ak ñi nga xamante ni si bi ñooy ay euh, mbokkam mais na jël décision bi ci gën a baax rek décision boo xamante ni si bi di ko arrangé parce que li ko arrangé aussi lay waaw ba léegi dañoo des si Bayern googu Munich googu wax ci ki nga xam ne mooy ñabri euh, gars yi ñabri waa Bayern Munich dañ ko xamal ne leer dañ nekk prêt ñu pour bàyyi la nga dem tànk Sadio Mané ñëwul ñoom de xamal ne xamal nañ ko ni bu fekkee Sadio Mané nangu na pour ñëw fii Bayern Munich ba fekk bu signé fi donc yow dañ lay bàyyi nga dem amatuñ am soxlawatuñu la bu fekkee Sadio Mané nanguñu lay bàyyi nga mais bu fekkee Sadio Mané ñëwul fii ngay des sa un bi nga xamante ni si bi moo la des si koy toog nga football ko donc li ñu si mën a jàppale rek mooy ñabri waa Bayern nanguwuñu parewuñu pour bàyyi ko tant que Sadio Mané ñëw buñ la bu leen amee loo xam xamante ni si bi lu leer la xam ne Sadio Mané bëgg na ñëw fi nga xam ne mooy club bi nga xam ne mooy mooy euh, euh, Bayern Munich ñoom waa ñoom Euh, pare nañ ko pour euh, ko ñabali tamit ah ñabali tamit Real Madrid moo ko euh, bëgg andi recruter ko foofu parce que Alaba Alaba Real Madrid bi nga xamante si bii dafa nekkoon Bayern mi a jàppale rek ñabari du plutôt ñabri ah ñabri ah, mi tant que Sadio Mané ñëwu fa yi fi lañ xibaar di ñaan a jàmm di leen ñaan a ngeen di woy di abonné ci chaîne mi daal lépp loo xam ne rek information de football ñu koy dugal fii di ngeen karate jaa ngeen jëf merci beaucoup Sega, one love.